www.sangatv.com. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës dellu rek wax ca touriste yooyu nga xamante ne kon danu leen a fëkkoon ci diggante dëkk boobe ñu naan euh, Karong ak Kataba 2 ñoom ñooñu nag seen lim toll ci juróom kenn ko moom doomi Sénégal la ñu si des ña nga fekk baax ci réewum Espagne ñetti soxna kon bokk na ca ñu mujj nag kon sàkku soxna yooyee laata ñu leen di bàyyi ñu def ñaawteef boobee nag ñu ne ay jaas la ñu yoroon ak i machine dinañ ci jokkoo ak Boubacar Diassi euh, ci kanam tuuti euh, lay doon procès bu Khalifa Sall ñu doon ko amal tey jii nag euh, doon ko wéyal boobee euh, procès gannaaw nag ba nu ko euh, dooraatee fi nii fa ñu toll kon ca procès ba mooy rek ñiy fare ci défense bi ñu ngi sàkku nag ñu bàyyi seen client bàyyi ba néggandiku waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy avocat nguur gi ñoom la ñu wax rek mooy amagul benn maanaam jumtukaay mbaa kayit bu ñu mën a sukkandiku ba tax nag ñu nangul leen loola nga xamante ne moom la ñu bëgg couverture maladie universelle daanu ci àddu muy ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo ca war war a faju ca boobee couverture ak ñi am carte de carte d'égalité euh, des chances boo euh, de santé yi loolu sax mooy lu ñu wax Moustapha Mbengue mi nga xamante ni moom mooy njiital union départementale bu mutuelle de santé euh, communautaire àdduna ci nee na nag nguuru Sénégal dafa yoral mutuelle yooyu koppar yu baree bari moom di ngeen déglu ay kàddoom ci kanam tuuti famille omarienne ñi ngi ci ziara bi nag nuñ koy baaxuti def at mu ne muy njabootug Thierno Seydou Nourou Tall ak Thierno Mountaga Tall lu am solo doon nag tukkee fa ca waxtaan ya ñu door bokk na nag ci jullit yi ñu daal di nag def seen kéemtalaay kàttan bàyyiwaat xel bu baax a baax ñu baax ñi fi nekkoon rawatina ak seen kilifa yooyee waaye nañu fexe rek ba li nga xamante ni moom la yenn réew yi àdduna bi di nas nag bañ a am muy nag gàkk gi ñu bëgg a gàkkal deru l'islam mbokk yi ponk yaa ngi nii ci gi léegi léegi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko fële ca diwaanu euh, Ziguinchor euh, dëkk ba ñu naan Karong ak euh, Kataba 2 ci diggante boobee nag ni ñu ko waxee am ay touristes yoo xamante ne dañu leen faa fëkk ci suba ñu ngi ci doon jokko ak jas Diassi ñuy wax ne nag ñooñu nga xamante ne kon ñoo def lu ñu mel ay jaasi la ñu yoroon ak i machine ñeenti soxna nag ñetti soxna kon bokk ci ñooñee ñu fëkk ñoom soxna yooyu dañu leen a sàkku laatu ñu leen di bàyyi Boubacar Diassi mi ngi ci bu jokkoo bi Boubacar Diassi dellu naa la nuyu fay naa la Fatou Kiné euh, Boubacar Diassi euh, lan la mën a jàppaat euh, ci xibaar bu bees ci li nga xamante ne am na démb foofee Ah, ah, alors Fatou Kiné wax nga dëgg bi mu amee ba léegi xam nga liggéey journaliste mooy topp l'information di ko di ko gëstu di ko gën a euh, taataan di ko segg bu ñu defee liggéey boobu nag dañu dem découvrir li nga xamante ne moom mooy euh, lu ñu wax ci français modus operandi euh, ñi def ñaawteef boobu dañu jàpp ni ñu ngi ñu am comme information nii ndeke ñetti nit ñoo ko dong ñoo ko def du groupe ñoo ko def mais ñetti nit dong ñoo ko def mu doon ñaar ñi ñetti nit ñi nga xamante ne dañu ñaar ñi dañu yor ay jaas yi maanaam ay arme ay xale bi nga xam te moom moo gën a tuuti si ñoom euh, donc mu yor li li ñuy wax cartouche car kii ñu ñu xam arm yi dañuy xam la moy cartouche yorul arme bi ni ñu ko waxee mais cartouche bi la yor bu mu euh, braqué euh, ñeenti juróom juróomi nit yooyu mi nga xamante ne ñeenti touriste euh, espagnol la ak benn sénégalais bi doon dawal seen oto ci la dugg ak ñoom ñu dem sax fekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñaar ñi ñoon ay jaasi ci biir àll bi ci biir àll bi ñoom dañu nekkoon dañu nekkoon tuuti ci biir suñu information ñu yor sax nee ñu bu ñu doon dem sax ak xale bi ñoom sax ñu ngi doon hésité ba xam xale bi ñu daal dal ci kawam noq ko fu noq ko parce que dañ ko xeeboon sax ndax ñu dal dal ci kawam noq ko ba ba ba nangu ay ay affaire am mais ñu ne wóorul ndagam xamuñu fu ñu jëm bu ñu demee si biir nag lañu ñoo ñu nag dal seen kaw euh, def ñaawteef boobu euh, ñu ne sax xale ñetti ñooñu bu ñu yeggee si jigéen ñooñu ba pare am na euh, am sax benn soxna bi ne bi leen ne pourtant yéen âge bi ngeen am nii mun naa doon seen maam sax xale bi ne ko maa ngi jéggalu euh, donc loolu mooy information bu bees bi ne ñoom lañ moom la ñu amal di si ci ñu koy jaajëf bu baax Boubacar Diassi doon jokkook ñun ci diwaanu euh, Ziguinchor jëwriñ délégué bi ñu dénk euh, PUDC di Souleymane Jules Diop àdduna nag ci ñaawteef boobee nga xamante ni moo amoon ca Bofa muy fukki ndaw yaak ñeent yooyee ñu faat lu ni mel nag nee na jot na ci nguurug Sénégal mu jël ci ay matuwaay masla bi nañ ko ne tegg ci suuf te jëflanteeg ñi nga nga xamante ne nag ñoom ñooy def lu ni mel euh, ca Casamance Souleymane Jules Diop euh, ni ko waxee di jëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci PUDC ñu teewlu ay kàddoom ci micro Pafara Ñing damay naqarlu bu baax a baax li nga xam ne xew na ci Casamance te démb ci suba ñu yee ñu encore ci yeneen incident yoo xam ne wax nañ ko muy ay attaque ay jigéen ci jëfin yu ñaaw yoo xam ne jarul sax di ko wax fii tellement dafa ñaaw parce lu mel noonu kenn mënu ko il faut que nit ñi à un moment donné ci sunu histoire ku nekk nga assumer sa responsabilité historique ci lii xew mënuñoo expliquer wala justifier lu mel nii man duma ko def ragal du tax ma def ko ci jàmm am Casamance stabilité am Casamance waruñu ko foowee waruñu ko politiquer te lii am na kenn mënu ko justifier te dara waru ko justifier on doit pas accepter que ay nit di dem ci journaux yi wala feneen di dem di justifier l'injustifiable wala di expliquer l'inexplicable waruñ ko def warta mën a ne loolu manta ne mais ana kan moo xalaat lu mel noonu toog fii di waaw bant bois bi pourquoi des coupes de bois contre des coupeurs de tête Euh, ñu wax nag euh, ci procès bu euh, Khalifa Sall article 120 ak 130 bu code de procédure pénale tey ji nag article boobee yëkkati nañu ko kon ca procès bu xalifa Sall muy avocat yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fare kon ci défense ba la ñuy sàkku rek mooy nañu ko bàyyi bàyyi ko néggandiku bu ñu sukkandiku ci yooyee article kii di maître Ciré Clédor lii moom nag nee na amul lenn loo xamante ne nii kon war nañ caa yàggal ci mbir mi naka noonu it ña ngay ñaan rek délai mu gën a gaawee ngir nag ñu bàyyi bàyyi néggandiku euh, kooke nga xamante ne rek moom mooy xalifa euh, Sall avocat bi fare ci défense bi ni ñu ko waxee loolu mooy euh, seen seenu bëgg-bëgg ñi fare nag ci nguur gi ñoom la ñu wax rek mooy amul lenn lu leer loo xamante ni indi nañu ko muy nag këyit mbaa lenn lu ñu mën a sukkandiku ba mën a nagal avocat yooyu li nga xamante ne moom la ñu bëgg muy bàyyub néggandiku procès bu Khalifa Sall di wéy boobu ba tey Taïba Ndiaye la jëm nekk ca département bu Tivaouane amul nag ay jumtukaay ci wàllug euh, wér-gu-yaram courant naka noonu ba tax na nag askan wa daal ña ngay wooteeg wàllu courant boobee sax bu ñu xoolee fa la ñu samp centrale électrique euh, bu euh, Tobène waaye ba nëgë ni askan wa ña nga ca ay jafe-jafe Cheikh Anta Diop Sey di ay ndaw yoo xamante ni jóge ci dëkk yu bëri yu mel ni Bayti Ndiaye Sam Kër jaañ Bayti géey nekk ci commune bu ba Ndiaye ndaw ñii de doon doon yuppi lépp loo xamante ne métti na leen ci seen ab gox. nee nañ ci ay jafe-jafe la nekk ndaxte lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ay yoon yu ñu jaar ak courant de dëkk yu bëri nekk ci ba njaay amuñu ko. ñun dañoo am lu ñu naqari benn sunu jigéen ñi fii ku ci ëmb. booy visité ji da ngay daw ay kilomètres ci ay pax ngay dugg di génn leneen sax mën na la cay fekk bala nga àgg fa nga jëm suñu cas de santé baa ngi nii médicament dara amu fi tali baa ngi nii bis yi ñu am muy jóge Tivaouane bu ñu yegsee ba ci dëkk yi fële fële ñuy taxaw ndax tali bi yegsiwul fii baa ngi nii xëcc nañ ko day tab ko boobu ba léegi bëgguñu koo politiquer tey ba Ndiaye lañ ci joxoñ baaraamam tuuma nee nañ daal amul dara loo xamante ne jàppale na ko ndaw ñi ci commune bi waaye kenn ci ay conseiller maire bi di indi tontu dëkk yooyu am nañu école am nañu tali bu fa àgg je pense que ci ngeen jaar ba àgg euh, ndox aussi les cinq villages yi nekk Taïba commune Taïba Ndiaye yëpp aussi am nañ ko am nañu aussi euh, école muy école Kër Madiagne boobu dëkk yooyu yëpp ñoo ko bokk année 2017 bu rek la fa maire mujj a def benn classe c'est une classe euh, en mu ngi foofu am nañ aussi case de santé d'ailleurs infirmière ba fay fay sax ba fay nekk sax may maire moo ko jël en charge defal ko contrat di ko fay. ndaw Taïba Ndiaye nag nee nañ jamono yi nag sonn nañu ndaxte gis nañu ay entreprise yu bëri yoo xamante ni ñëw nañu ci commune bu Taïba Ndiaye samp fa waaye du benn ndaw boo xamante ne jël nañu ko bu fay yënguwu ñi ay contractuel lañu nekk nag euh, ca port autonome bu ndakaaru ñàkk déggoo nag ak seenu njiit euh, tax na boobu ba tey ñu nekk ci fantasiro gu mënta jeex dem nañu sax ba mu jaral leen nag euh, ñu ne daañu dem ca yoon buñ ca jotulee yegg janoon nañu nag ak taskatu xabaar yi wax li nga xamante ne rek moom la ñu fas yéene ci xeex bi Habib Faye ña daan liggéeyee ca port bu ndakaaru mer ba futu lañu def ci kaw directeur bu bees bi di Aboubacar Sadikh Bey ñoom ñi ne directeur bi deful lenn lu dul jël ay ñoñom dugal leen foofee ca poor li ni mel tax ñu ne daañu ko porter plainte ay sénégalais leen ay doomu réew mi leen dañoo bokk ci réew mi ñu jël ñi ci réew mi employé ñu du ñuy fay salaire ñu am des contrats yoo xam ne ñu ngi nii su des bases claires et nettes contrat yoo xam ne forme bi baax na signé nañ ko jaar na fu mu war a jaar et ñu ñëw ba ci diggante bi liggéey un mois 17 jours benn kilifa gu bees ñëw ci kër gi bëgg a changer lépp saboté ko on va pas accepter ça. D'abord, on a porté plainte. ñoom liggéeykatu port yooyee ci talaata gi lañ fas yéene déposé après préavis de grève waaye tamit fas yéene nañoo amal doxuk ñaxtu. trop c'est trop nag dañuy wàcc sur le terrain mardi. ñu ngi yóbbu suñu préavis appel de marche dañ koy dem déposer ko au niveau de la sous-préfecture ou bien du niveau de la gouvernance pour ñëw marche dans les allées du port dem ba direction générale wax suñu indignation def suñu grève de faim. ñeenti téeméer ak fukk ak benn contractuel yi ne ñoom jamono ji li ñuy dund metti na lool. ci loolu ñuy woo njiitum réew mi Macky Sall mu ut ci pexe. ñu ngi lancé lancé un appel solennel au président de la République et à toutes les khalifes généraux aussi. jusqu'à même aussi lancer appel aussi le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur aussi, jusqu'à le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye di ko xamal ko ne ko nag le trop c'est trop te toute patience aussi a des limites. ci fàttali ñoom liggéeykat yooyee kaleen dàkk moo di directeur port bu bees bi gannaaw bañ ko installé ba noppi. Ibou ak ay ñoñom xalaatuñoo teg mbir mi ci suuf benn yoon te itam dinañ sóob seen loxo ci xeex mi ba keroog ñu ciy am ndam Euh, syndicat unitaire et démocratique euh, des enseignants bi bu jàngalekat yi yu euh, Sénégal ñoom nag ña ngay yëglu boo mayul daañu yëngu-yëngal ci ay bis yi di ñëw ngir nag nguur gi gestu leen ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel nee nañ nag kilifa yi waroon nañoo xool rek dal gi am ci atum 2017 ba tax na kon jafe-jafe yëpp ñu taxaw ci waaye lu ni mel nag dafa mel ni bàyyiwuñu ci xel te ndaje mi nga xamante ne nag yenn ci syndicat yi daje nañ ko ak njiitu jër yi ni ñoom ab lajj lañu ko jàppee Doudou Ndiaye moom wax ci turu syndicaliste yooyee ñu teewlu ko ci micro Fatou Bintou Conté. 2017 bii ñu génn daanaka amul benn yëngu-yëngal ñu yaakaaroon ne nguur gi dina jël at moomu jéem a jëfe déggoo bi nga xam ne xaatimoon nañ ko ñoom ak jàngalekat yi te mu ne woon lu nguur gi àttan la mais boo koy xool saytu wat ko bu ci biir euh, poñ yi nga xam ne moom la jëfe moo gën a néew poñ yi nga xam ne moom lañ xaatimoon ñu jàpp ne loolu bokkul ci li nga xam ne mooy indi dal ci biir école bi ah, bi ñu ñëwaatee nag di waxtaan ak nguur gi poñ bi nga xam ne moom moo gën a indi jafe-jafe ñi mooy li jëm ci ndàmpaayu dëkkuwaay yi ñëpp xam nañ ne euh, euh, fukki junne ak ñaax mënul sax am néeg bu baax waxuma la nag dëkkuwaay bu jàngalekat bi war a nekk moom ak njabootam boo xoolee ci liggéeykatu Sénégal jàngalekat bi mooy ki ci gën a néewle ndàmpaayu dëkkuwaay te yaakaaruma ne jàngalekat yi ñooy ñi gën a ñàkk solo ci askan bi ba tax na bi ñuy waxtaan ak nguur gi ci lu yokk ndàmpaay loolu dañ ci am mbetteel ndax nguur gi daf ñoo proposé euh, nañu woon li seen porte parole waxoon junne ak ñaar téeméer démb ministre du travail ñëwaat ci ne ñaari junne la ak ñaar téeméer moom lañ ciy yokk ñu jàpp ne ba léegi loolu dafa mel ni dañ ñuy saaga. ñu dem ba Sinthiou bi foofe nag lycée ba daloo nañu ko démb ci alxemes ji ci teewaayu jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk njàng mi di Serigne Mbaye Thiam mu yëkkati fa ay kàddu bokk na nag ci jagleel diwaanu maatam ñaari milliards ci suñu koppar lépp nag ngir defaraat kon kalaasuk négandiku yooyu nga xamante ne dañu ko faa def rek ba keroog ñu koy tabax dañ ci ànd ak useenu Diop Habib Seck. ci lycée bu Sinthiou Bamambé léegi nag drapeau bi mën na yéeg ki wàcc. ndaxte bërëb bile daal dinañ koy tabax lii doonoon mëbatu askan wi. jooni noon taade hannde ko lycée guddi tan tey ji li ñu ngi inauguré lycée bu Sinthiou Bamba kon loolu dañ ci war a sant yàlla ndaxte lu mag la dina jàppale élèves yi dina tax ñu gën a taxaw ci wàllu njàng mi dañu war a rendre itam hommage ci école 1 bi nga xamante directeur général di Douane fi la jógee man mi ministre laa ci fi laa jàngee Ousmane Ibrahima moo doon kuy tam ingénieur la fii la bàyyeekoo kon tey ji lii jéego la ngir xale yi seen njàng gën a a taxaw Serigne Mbaye Thiam ministre bi yore lépp lu jëm ci njàng mi teewe woon lu jëm ci wàllu ndaje bi itam rafetlu liggéey bi nga xamante ni association des ressortissants de Sinthiou Bamambé ñoo ko amal ànd ceeg état bu Sénégal ak état bu France moom sax fàttali na liggéey bi nga xamante ni nguuru Sénégal def na ko ci wàllu njàng mi fii ci diwaan bi. pour daloo lycée bii nga xam ne ay doomu dëkk bi nekk bitim réew nekk France ay doomu dëkk bi jàngee fii nekk fii biir Sénégal ñoo lëkkaloo ak gouvernement français. ci benn projet boo xam ne bii am na ko fii ci Sénégal ñu koy wax PISD pour tabax ko. ci diggante président Macky Sall 2012 bi mu fi toogee ak léegi dugal nañ fi lu mat juróom-ñetti juróom-ñetti milliards ci mbirum njàng mi. lu jëm ci wàllug daara yi nga xamante ni ay saket la wala boog muy ay mbaar ak taxawal bi ñu war a taxawal yenn ci lycée yi Serigne Mbaye Thiam nee na lu toll ci juróom-ñaar ci ay milliards dañ ko dugal ci diwaan bile. waaye danañ ci yokk. diggante ñaari at yii di ñëw fekk dem 2019 ñetti milliards ak juróomi téeméeri millions yoo xam ne yi danañ ko dugalaat ci mbirum njàng mi fii ci région de Matam. ñu xayma classe yi nga xam ne ay crinting la wala sàkket ëpp léegi jege na ñaar téeméer classe yooyu ci programme bu ñuy wax. programme de remplacement total des abris provisoires lu mat ñaari milliards danañ ko dugal fii ci région de Matam. xale yi nekk ci lycée bu Sinthiou Bamambé léegi nag war nañu gën a mën a nokki ndaxte lii bokk na ci seen i mëbët moom Serigne mbay Thiam nag ñaan na leen ñu gën a sàmm lii di lycée bu Sinthiou Bamambé. Sénégal nag toll ci euh, xoolaat fichier électoral bi nag noonu mu am liggéey bu am solo boo xamante ne nii ñu ngi ko ciy def tey nag am na ab lël boo xamante ne xëy nañu ko ci amal ñu ne nag fukki fan ak ñaar euh, ci weeru février bi di ñëw nag dana am ab ndaje mu yaatu moo xamante ne kon dinañ ko def ci wàllu wooyu waaye jàppale ne nag sunu fichier lu toll kon ci ñeenti borom xam-xam yu fekk baax ci bitim réew ñoom ñoo fas ne kon liggéey ca boobi euh, fichier tey jii nag la woon ndaje ma ca direction générale des élections à Assane bi fixé nañ ko ba noppi daanaka lu toll ci weex ñu présenté seen rapport say tupp fichier électoral bi door na. ñeenti experts yi daanaka teew nañu te loolu yëpp euh, jàpp nañ ne atelier de restitution maanaam jébbal liggéey euh, bi nga xamante def nañ ko jàpp nañ fi daanaka lu toll ci fukki fan jamono ji nag ci dajalepp documents yi xamante ni euh, dañ ko soxla ci suñu liggéey ak interview ak yi ni mel loolu lañ nekk mu mel ni kon ñoom way politique yi ñoo ko sàkk woon ab appel d'offre lañ ko jaaralee ngir amal sélection bi centre européen d' appui électoral teew ci réew Sénégal depuis at bii ñu weesu def li mel. l' appel d' offre était un international euh, pour des personnes externes euh, qui puissent. ab euh, appel d' la ñu def ab appel d' offre international ngir fexe ba euh, tànn ñi nga xamante ni ñoo koy liggéey ñooñu nag du ñu nekk ay sénégalais daañu andi seen xarañteef seen expérience ak itam seen jugement ñoom ñi leen nag seen liggéey bi daanaka daañ ko sekk ak direction générale des élections te itam ay collègues sénégalais daañ ci bokk daañu am possibilité itam recruter kenn ki nga xamante ni bokkoon na ci audit fichier euh, 2010-2011. été euh, sélectionné pour l'audit donc ça fait l'objet d'un consensus. liggéey bi nag daanaka acteurs politiques yëpp ñoo ci d'accord te ñun itam daañu fexe ba wekku ci terme de référence yi nga xamante ni fixé nañ ko li ci ëpp nag ci terme de référence yooyu daanaka dañ ko wekk euh, ci audit fichier bi ñu amaloon atum 2010 ak 2011 euh, yooyu nag euh, bokkoon na ci sax suñu benn collègue ñun nag daanaka amal nañu suñu réunion bu njëkk ab comité pilotage bi. notre notre équipe de présenter notre approche. ñeenti experts yi. nekk ci liggéey bi cadre de concertation bi jëm ci wàllum processus électoral bi di wéyal waxtaan yi élément yëpp daanaka dañ ko jébbal experts yi ngir fexe ba seen liggéey bi nekk liggéey bu jaar yoon Euh, faju moo dul fay dara di couverture maladie universelle ñi nga xamante ne nag euh, ñoom ñoo yore euh, carte d'égalité des chances yooye yu leen di may nag ñu mën a rek jot jot kon ci paj moomee jaare ko ci mutuel de santé yi mutuelle yi nag nee nañ mënatuñoo taxawu ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo yore carte d'égalité des chances lu ko waral nguurug Sénégal dafa yoral ay koppar yu bari yooyee mutuelle Moustapha Mbeng moom mooy njiital union départementale des mutuelles communautaires moom moo wax kàddu yooyu ñu teewlu ko ci micro Fatidien état bi ci boppam moo ñu waroon jox ay subvention engagement yi état bi jëloon yépp ci mutuelle yi respecté wu ci dara ndax moo waxoon ne tey ji waaye laago yi dafa leen di cotiser ci mutuelle ñu jël leen faj leen 2017 kenn joxuñu seen subvention ba tey euh, ñi am bourse sécurité familiale état bi ne ñi ay néew di dooleel dañ leen di jël ñoom ak seen famille cotiser leen te mu doon lu takku Euh, ba euh, plus de cinquante et quelques mille personnes ñu jël leen faj leen janvier ba décembre xaalis boobu ñëwul leneen li nga xamante ne moo tamit gën sonal mooy képp ku natt ci mutuelle état daf la war a nattal ci union départementale pour ñu jël sa faj ci hôpital loolu tamit ba heure bii may wax yow jotuñu ko te ci la ñu waroon sukkandiku pour faj ni niveau hôpital waaye malgré loolu tamit mutuelle ñu ngi continuer di gàddu faj bi ndax askan wi am na ñu nattal seen bopp loolu moo ñu tax sax ñu dem ba at bi génn ci ni képp ko am bourse sécurité familial wala nga am carte égalité des des chances bi 31 décembre jotee ñun mutuelle nee nañ banque nañu loxo suñu loxo. ñu wax ci ziara bi nga xamante ne nag at mu ne njabootu Seydou Nourou Tall ak Thierno Mountaga Tall dañu koy amal lépp rek ngir euh, sargal ak dellu rek waxtaanee nit ñu baax ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon di seen i waajur loole nag kon daal di nañ koy rek tàmbali ñi nga xamante ne nag ñoo fa ñëw di taalibe jullit yi euh, yëkkati nañ fay kàddu yi am solo jëmale ca ñooñee muy nag ñu gën a joxante loxo bàyyi seen xel bu baax a baax euh, ci ñooñe nga xamante ni ay nit ñu baax lañu waaye tamit nañu fexe ba yenn réew yi li ñuy nas nag bañ am muy nag di jéem a gàkkal l'islam loolee nañu ko xeex ba fa xeex yam Cheikh Hassana Fall Pape Sangone Mbaye ñu jógee ci koñ yëpp fii ci sunub réew wala sax ci sous-région bi taalibe yi jiital seen gëm-gëm ak seen wóolute ñëwaat wuy si seen wasila ak ci ziare annuel gi ñuy amal ñoo fi doon ziar doon encore yeesal encore euh, sunu pas-pas parce que ñu ay nit kilifa diine la yoo xamante ni seen liggéey ci diine bi du lu kenn duy natable quoi. wax dëgg yàlla lu ma fiy sentir mooy damay sama xol dafay delluwaat ci yàlla subhaanahu wa tooy ma xam ne yàlla rek mooy yàlla. chaque année su ma ñëwee ma yëg si yokkate di ziare suñuy maam nga xamante ne Cheikh Omar Foutiyou defal ñu fi lu rëy suñu maam Thierno Seydou Nourou Tall tëdd fi suñu maam Thierno Mountaga tëdd fi di ñëw di leen ziare at bu nekk yokkate rek laa ci gis. ab ziare bu spécial. Euh, mag ñi ak ulema yi dañu ne nañu may nit ñi bu ñu ñëwee bu ñu defee fii ziar bi bu ñu ñëwee dinañu mën a ziar sëriñ yi ñaanal leen yàlla ba pare ñu toog ñoom seen bopp ñu ñaan borom bi defal leen mucc ak xéwal ren nag Thierno Amadou Mokhtar Sakho mi nga xam ne moom mooy kaadi ca Bogge euh, dëkk Sinthiou Dange moom la pare ne événement bi waaye moom solos bi nekk ci moom moom moom moo jàngal suñu sëriñ maanaam Thierno Saydou nuru taal ci jamono ji ñu nekk diine lislaam ñuy yàq daram ci fu mu mënti doon waaye yële taalibe ti woowaat seen mbokk julliti ñu sëggaat ci jàngaleeb kilifa diine yi. dañu bëgg a won adduna bi ne euh, lislaam xamul xamul fitna fitna bokkul ci lislaam ndaxte Cheikh Omarul Fuutiw njàngaleem yëpp mu ngi ko jëlee ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Cheikh na Ahmad te ñooñu boo jëlee seen seen seen dund seen dund yëpp jàmm la woon. ak ziyaare bi dund ak jëfu wasila yii di Thierno Seydou Nourou Tall ak Thierno mun tagaataal ñoo ngi koy gën di fësal fii ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru jan jaajëfal ko Alassane Ba kuréel gi ëmb nag diocèse yi ak mbootaayu soxna yi ñoom joxante woon nañ loxo rek fële ca diwaanu Tambacounda ci ab ndaje mu yaatu moo xamante ni ñu ngi ko doon amal foofu lu toll kon ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci doomu aadama ñoo tase woon ca ndaje moomee yëkkati fa ay kàddu bokk na nag ci ñaax kilifa yi ñu bàyyi xel bu baax a baax ci ñàkkum xëy mi moom la ñu bëgg a xeex waaye tukki gu lewul gi tamit naka noonu moom la ñuy teg léeg-léeg jigéen ñi Moussa Oumar Gueye Amadou Diédhiou lëkkale suñuy doole ak di am yaakaar ngir jàppale njaboot gi ak ñëpp ñi nga xam ni ci jamono ji ci àdduna wërngal këpp ñu ngi dund ci guddi gu bët setagul nekk na li nga xam ne daal mooy poñ bi ñu tànnoon ngir ndajeem waxtaan bi nga xam ni kuréelu jigéen yi nga xam ne ñoo bokk ci kër jàngu bi ñoom nag daal dinañ koy amal fii ci Tambacounda mu lëkkale di toll ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom yi nga xam ni soxeeku nañu ci mboole diwaan ci Sénégal la abbé Théophile bi nga xam ne moo doon wax ci turu monseigneur Jean Pierre askan wi nañu gën a bàyyi xel ak jàppale ñi nga xam ni ñoom ñooy jigéen ñi. te Tamba defe naa bu ma fàttewul tey mooy ñetteelu yoon bi bu ki daf see taxawee ak léegi. ndax ñu ne neen la jigéen lañu te ñu ngi indi li suñu këmtalaayu kàttan ci fonctionnement église bi ak ni aussi nguur gi di doxee. ah sànq wax ngeen ne di ngeen jàppale femmes yi ñu organiser ci secteur yu bare wante wax nañu sanq ne. am nañu benn événement bu mag bu ñuy waaj ñu ñaan yàlla mu yóbbu ñu seeg jàmm mooy kuréel gu mag gi nga xam ne moom moo ëmb organisation femmes catholiques yi nekk àddina wërgal képp ñoom ñoo war a ñëw Sénégal. ki nga xam ni moom la ñu invité woon muy Mamadou Kassé directeur général bu SNHLM nee na def kéemtalaayal kàttanam ngir jàppale jigéen ñi ci jamono ji nga xam ne ñu ngi wax waxtaan wu gën a yaatu ak sell diggante jullit yeeg waa kër jàngu bi fii ci Sénégal. Eh, bu ñu dee structure nationale di yëngu ci wàllu kër. ak dëkkuwaay ñoom ñuy structure nationale di ay citoyen sénégalais euh, wàllu kër rek war nañoo mën a dajale donc parce que ñoom it ay citoyen lañu donc war nañu mën a waxtaan ba nga xamante ne ñu xool ñu naka lañ leen di yombalee mbir yi ba nga xamante ne euh, dinañu mën a jot ci kër yi ni mu gën a yembe Euh, groupe Futur euh, Média sargal ay jaaykatam ñi nga xamante ne nag euh, ñoom ñooy xëy di jaay yéenekaay bi di l'Observateur ñu ràññee ko lool ci Afrique subsaharienne Afrique bi nga xamante ni sax ñooy gën di làkk ko kon nasaraan Mamadou Ibra kan nag daal di rek dalal xel yi ci wàllu woowee def ni atum 2018 atum jaaykat lépp rek sar ngir sargal jaaykat yooyu ni ma ko waxee fii nag ci télévision Futur Média fii lañ leen dalal ñoom jaaykat yooyu daal leen rek kon delloo njukkal lu ci Hubert Mbengue moom mooy directeur bu Record Ababacar Fall njiital l'Observateur ak kenn ca jaaykat yooyu ci micro Habib Faye. Euh, directeur général wax na ko nee na revendeurs yi ay partenaires lañu mais man dinaa sax xaw a gën a sore tuuti partenaire damay jàpp ni ñoom ay actionnaire lañ ci journal bi. Youssou Ndour loolu la bëgg directeur général bi wax na ko nee na observateur moom mooy premier journal de l'Afrique francophone ak subsaharienne loolu lu baax la. mais suñu ambition romb na loolu parce que dañu bëgg def journal l'Observateur mu nekk le premier journal de l'Afrique. dina métti trop lu difficile la parce que l'Observateur am na taxawaay mais ñun li ñu bëgg mooy topp si tànkam te xam nañ bu ñu toppee si tànkam euh, revendeur yi jàpp si direction bi jàpp si ci dinañ dem ba euh, jege ko wala même dépassé ko. du tey rek lañu commencé def yàggan nañu sagal ci chaque euh, ramadan wala yeneen feet yi danañu sargal. mais tey lañu gën encore kontaan waat suñu samoon lu ngeen laa rek mu gën a avancé te day gën a rek incha allah su société kii groupe Futurs Médias yëpp ma ngoog muy jaaykatu yéenekaay boobee di l'observateur ñu doon leen sargal fii ci télévision Futurs Médias mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax ci kanam tuuti Fatimata Ba dina fi teew ngir xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf